coupe d'Afrique bi ñuy jongante ca Cameroun dafa mel ni kii Sénégal supporters yi ñu ngi door a commencé di supporter ndax bañ ñu qualifié final la nit ñi door a génn di jubilé drapo yi génn mayo yi génn wante sax mayo yeeg drapeau yi ba coupe d'Afrique doon commencé dafa lamboon kenn jënd ko waaye tamit askanu Sénégal ñuy def ab laaj bu mooy ca commencement ma njëlbeen ba ñëpp bañoon ñuy xaste di xas moom mi la ak ay jouram kenn gëmu ko woon ba ñu demee ba ci digg bi nit ñi seen xel commencé ñaar ñuy commencé ñëw par ndànk-ndànk waaye tamit bi ñu qualifié quart de finale demi finale bi ba ci démb bi nit ñi commencé koo gëm donte am na as néew boo xamante nii sax gëmuñu ko woon balaa ñuy gëm ne qualifié nañ ñu gagné kii di Burkina Faso waaye daal dafa mel ni ki daal xaste yañ doon xaste ca commencement ba di saaga joueur yi di saaga ki nga xam ne moom mooy Aliou bi yoon moom ñëpp a nangu teg nañ ko ci suuf ba sax doon jéggalu Aliou ak joueur yi waaye ba ñu qualifié final mu mel ni ki mbeddum ndakaaru yi ak ci biir réew mi nit ñi di jibile di yuuxu di kontaan tey lu ci bëri mooy génération bi nga xamante ni mooy bu bees bi ndaxte ñun final demi-finale quart de finale miis nañ ko tàmm nañ ko te objectif bi lan la mooy jël coupe d'Afrique des nations bañ leen jox drapeau bi fële ca palais de la république ñoom jori seen bopp xam nañ ne benn objectif la ñu am mooy jël coupe d'Afrique des nations ndaxte ren daal dafa nduróog ab sànni tàccu ndaxte am nañu jour yoo xamante ni war nañ ko mën a jël. kon fi mu nekk nii askanu Sénégal bi nga xam ñoom ñoo bañoon tey ñu nangu ana lan moo waral lu ni mel ndaxte ndam rek la ñuy gis te it bëgguñu lajj. waaye fi mu nekk nii sax président la république ca jibile bi moom Macky Sall génnoon na di jibile man mii may samp ab laaj ndax moom président la république Macky Sall li mu lajj ci élection locale bi mooy saraxu coupe d'Afrique beeg ndéet waaye daal nit ñi jamono ji moom nangu nañu.